alors on va terminer yaa ngi koy wax léegi sa yaay est-ce que situation yi nga xam ne des fois ci lañ lay dégg dina ko naax euh, comment elle réagit qu'est-ce qu'elle te dit wala lan lay wax en tant que conseil venant d'une maman à son fils euh, boo may defal benn témoignage ci moom lan lay doon. waaw Ahmed Anna. waaw Ahmed Anna Ndoye soo demee si réseau yi loolu nag may loolu dafay fay fekk ah. Mhm. man maa ngéntiwaat sama bopp yóbbu Anna bi parce que la l'adore tellement comme dooy bi jël naa ko si sama papa. bu mhm. falee ma ko. Mhm. Euh, ma am dara lu jóge ci moom. voilà elle est très forte. elle est très forte aussi elle responsable politique ah. xam na qu'est-ce que c'est la politique. xam na yii quoi xam na yi xew nii xam na ko bu baax a baax. danaan nekk biir maison di parti di raak moom tamit daan raak ah. moom xam na yi yow koy ràgg lu naturel la ci yow <laughs> xam na ko bu baax donc ay investiture parti socialiste mm-hmm, mm-hmm. nekk naa xale gunge ko ci bataay muy am bi mu demee commune coow lu bari mu ngi ci woon lan la lay comme conseil moo nekkoon au cœur de de ces polémiques là mais moom d'habitude conseil bi du bëri ah mooy que dëgg quoi mooy li ma doon wax sànq am na yoo xam ne question éducation la mm-hmm. cest à bu ma yàq nit bu ma wax surtout daf ma naan bul waxal kenn waxal say wax. waxal say wax. waaw parce que nee na ma tant que xam naa ne say wax ngay wax doo sosal nit doo fenal nit. est que yaa ngi topp conseil yi. di nga boo toogee ci télé bi doo wax say wax ay waxu jàmbur rek ngay wax. yàlla xam na ne non ba nan nga tuddee waxu jàmbur parce que bu fekkee waxu jàmbur ay waxu Ousmane Sonko rek laay indiwaat nag. <laughs> mais samay wax la maanaam man maa décidé wax ko c'est-à-dire foofu laay waxee. ok d'accord sama décision personnelle la. Uh-huh. man bëgg ko wax. Mm-hmm. lu mu nekk sa conviction sa gëm-gëm sa xalaat. dara taxul ma koy mm-hmm. wax mais daf may wax alal bu mu tax daraja bu mu tax. tur bu mu tax. Mm-hmm. ngay wax pour yàq nit wala pour yàqal nit. voilà et yàlla xam na ko ci laa nekk. macha allah waaw elle est elle très très très forte. moom tamit li <laughs> di yëngalu ko sax. et le début daf may wax ne. su fekkee saaga mooy tax nga reculer wala ay menaces yaboo ñi lay saaga man nga yab ndax man jur ma tàppe allah l'émission va bientôt tirer à sa fin lan plat préféré eh, eh, bu ma ko waxee rek ñoom Québec pam nag <laughs> ak papikan mu leen bàyyi ma nag xam nga man man dama bëgg différent <laughs> man damay ñëw fekk lu ñëpp bañ ma bëgg loo bëgg. bi ma seetloo gis ne góor ñi dañoo bañ doomu. xaaral ma dama de. <laughs> mulet nag naa ne doomu fii ñi fiy toog bëgg doomu bariwul. mais c'est quoi le problème avec ak ay le domoda là. mais complication maanaam Sénégal ngay ñëw fekk palaay sax ñu bëgg koo def affaire de genre voilà lekk cest à langue tuf nit après mu dem ci BSTT <laughs> yi gars yi wal mu génnaat fële loolu ñu bëgg ci indi ay question de genre. yow pour yow dama daa bi question de genre. <laughs> lu ci saabu.